ni nga naan laysa zaydun qaaiman waaye nag maa moom dooni maa qaaiman zaydun soo ko defee jëf ja yàqu amatul doole nga ni maa qaaimun zaydun wa tartibin tartib ba na des wa sabqa xarfi jarrin aw darfin kama bi anta maaniyan ajaaza al ulama loolu mu ni woon na fekk tartib ba des fa lisim ji dawlu xabar ja mujj mu dabaatal ko ni la moona nag su fekkee ni xabaru ma am na maamul bu di jaar ak majroor mbaa muy zaraf kooku mën na dawlu te kat suñu ko fekkee dawlu danu naan al maamulu laa yataqaddamu illaa xaytu yataqaddamu al aamil soo gisee maamul mi mën a dugg fii bu aamil jëdi koon mën fee dugg kooku looloo tax nde moom waxuñu woon maamulu xabar xabar ci boppam la ñu doon wax na tartib bi des bu xabar ji dawlu mu ne waaye teewul nag danañu dawal kat maamulu xabar moom ñu dawal ko su dee zarf ak jaar ak majruur bu dul loolu du mën a am maanaam du ñu daganal nga naan maa taamaka zaydun aakil aakil aakilan déedéet bu boobaa aakilun rek ngay xala wax de maa taamaka zaydun aakilun ngay wax maanaam zayd lekkul sa ñam wa waaye doo ko mën jëfloo foofu ndaxte nga ni ko waaw moom zayd dawlu na xabaram mujj na ko mu ni waaw waaye taamaka mafoolu akilun la te maamool fu muy dugg rek mu ngi mel ni amil jaafa dugg dafa mel ni da nga ni ma akilun zaydun taamaka noonu la mel ndax taamaka mafoolu akilun la fi mu dugg kon mel na na akilun moo fi dugg waaye da bu dee jaar ak majuróor mën na ko ka xawlika maa bi anta maaniyan ajaaza al ulama wa ajaaza dagalal na al ulama borom xam-xam noxaati sabqa xarfi jarrin jiitu ko xarafu jar wala zarf yoo xam ne maamulay xabari maa lañu ñaari maamuli xabari maa lañ doonul ñooy xabar ji de waaye ñooy maamulu xabar ja bu ñu duggoo dafa mel ni xabar ja da jiitu tartib bi amul niki maa anta déet yow maaniyan ngay ko fonk bii ci man nga jël bii joojee nga xam ne ci maaniyan xabar ja la aju nga dawal ko mu mel na maani yan moo dawlu ndax daal kii maamoo la wax surgaama loolu moom li muy jaar ak majróor tax ama mata amaka zaydun akilan néewoon nanu moom du mën a am bu doon ni du jaar ak majróor du zaraf du dagan de wala ma ma indaka zaydun jalisan waraf a matufin bi laakin aw bi bal min baadi mansubin bi malzam xaytu xal nee nga ilzam taqool raf a matufin rafaak lu ñu ataf ci laakin wala bal dégg nga yooyu bu ñu atafee li ñu ataf lu sax la di dégg laakin su fekkee da nga koo ataf nga bu fekkee ne da nga ataf xaraf yaar ñaari xaraf yooyu laakin ak bal xam nga ni ci xaraf yi ataf ya la ñu bokk dana leen ci lim nga atafe leen min baadi mansuubin ci gannaaw xabar ju ñu nasab bi ma ak ma ni ki ma zaydun qaa'iman nga daal di bëgg ataf ci qaa'iman nga ni laakin qaa'idun ngay wax wala nga ni bal qaa'idun ndaxte laakin ak bal li mu li mu seeti dafa saxal seen maa zaydun qaa'iman da nga maa dafa dàq taxawaayu say nga ni laakin qaa'idun laakin moom li mu ataf kon moom dafa taxaw du dëkk am moo tax kon naf yu ba nekku fa kon fokk rafaaku maa zaydun qaa'iman laakin qaa'idun wala nga ni bal qaa'idun kon xabar mubtada mu ñu xataf la maanaam taqdiran lakin huwa qaidun amma du jógee ni marfoo bi la ñu ataf direct ci mansub loolu kenn du ko def waaye boo ko ci atafeet kon jumla lay sopp doo dafa mel da nga ne lakin huwa qaidun mooy walsam taqul rafa maatufin rafa loo ataf bi laakin ak laakin aw bal yaari xaraf yooyu nga ataf ko min baadi mansubin ci xabaar ju ñu xabar ju ñu nasab ak ma xay su xalla fu mu fu wàcc ci arabiya rafaa ko ndax xabar mu tadd mu ñu xasaf lay doon de kon lëf kii ataf jumla ci jumla lay mujj wa baada ma wa laysa jarral bal xabar wa baada la wa nafi kaana qad yujar wa jarra jarna al baa u baa al xabara xabar baada ma ci gannaaw ma wa laysa gannaaw laysa niki wa ma allahu bi xaafilin alaysa allahu bi kaafin dégg nga nga jar xabar au lieu nga naan ma zaydun qaiman gani ma zaydun bi qaimin laysa zaydun fadilan gani laysa zaydun bi fadilin wa jarra al baa'u al xabara baada ma wa laysa wa wa qad yu jarru mën nañu ko jar nga xam ne taxu ko bare nag moom baada haadayni al xarfayni baada baada laa ci gannaaw laa wa baada kaana al manfi danañu jar xabarit ci gannaaw laa de ni ki ni ki woyu sawaad ibn qaarib bu mu doon tagge yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba mu ko déggee ba riir ak naaqaam nga mu takk dikk ba madina def ci xasida bu rafet ma nga cay wax naan fa kun li shafian yawma laa lahu shafaatin bi mughnin fatilan an sawaad ibn qaarib sawaad ibn qaarib mooy shaa'ir ma nga naan yoneen dama yal na nga nekk di ma rammu yawma laa lahu shafaatin bis ba nga xam ne amul benn boroom rammu bi mughnin buy aji jëriñ fatilan tus ku muy jëriñ an andi mu fa andi tuuru bopp bis boobu benn boroom ramukat bu dul yow du fa jëriñ sawaad ibn qaarib laa du shafaatin bi mughnin waa waykat bi moo tudd sawaad ibn qaarib mu ni nag yàlla na nga ma ramu bis ba nga xamee ne amul benn aji ramu juy jëriñ sawaad ibn qaarib dara ju dul yow maanaam juma dul jëriñ dara fatilan tus laa du shafaatin loolu mooy li si mu laa bi mughnin mooy xabaram mu jar koog baax wa nafyu kaana itam ni ki baytu chanfara wa in muddatil aydi ila zaadi lam akun bi ajalihim lam akun ajalahum loolu moo doon cosaan ni ki xabaru kaana ñu nasab comme dañu ko dàq nag ah kon tax na mu mën koo jarak baa akun fiilu mudaari om kaana mu ñu jasab fiilu mudaari o lil mutakallim wa nafyu kaana mooy loolu wa qad yujarru alxabar baada laa niki bi mughnin fatilan la yu shafaatin bi mughnin wa nafi kaana niki lam akun bi ajali ah mu ne nag fi nakiraati umilat kalaysa laa wa qad tali laata wa in zal amala mu ni wala laa nag umilat dañ koy jëfandikoo jëfloo fi nakiraati ci nakira yi kalays imaalan ka imaali lays mu dégg nga day niki laa rajulun qaa'iman dégg nga de ci nakira yi de waqat tali mën na méngoo wuute naag ma maa dana jëf ci maarifa ni ki ma haada bashara waqat tali mën na méngoo laa laata wa in zal amala ji jëf laata mooy laa ju ñu yokk taa taanisa lafz bi rek maanaam mi moom dugg ci da xaraf la dégg nga waaye lafz bi danañ ci yokk taawu taanisu lafz ni ki ñu ko yokkee ci summa ak rubba summa taag rubba taag laata te muy laaja woon rek mu bu ba bu ci taagi àndee nag moom ci zarfu zaman rek lay jëf dana na ne dana la ko wax wa in ak in yooyu mën nañoo méngoo zal amala jëf jooju yooyu mooy la mu tarjama woon fale wa maa li laata fii siwaa xiinin amal wa maa li laata ñeelul laa tax amalun jëf fii siwaa xiinin ci lu dul tegtale jamono maanaa ismu zaman soo boo baatu xiin ni ki walaata xiina manaasin ay walaatal xiinu xiina manaasin dañoo rafaa xasaf lisim ja loolu mooy li gën a bare nag laata moom mu ni wa xadfu di rafi fasha xasaf boroom rafaaga te mooy lisim ja bu boobaa fasha siiw na lool nag ñu naan walaata xiina manaasin walaata xiina firaarin ay laysa alxiinu xiina manaasin tàng ba du tàngu mën a raw yowmal qiyaam la du tàngu mën a daw raw de wala wala walaata walaata alxiinu jamono ba nekkut xiina manaas waxtu daw raw de ñu xadaf nag lisim ji loolu moo bare wal ak su safaan ba xàlla néew na saxal lisim ja bàyyi fa xabar ja moo néew kama ka qiraati walaata xiinu manaasin ay kooku xam naa boo demee du sabiya de shuzuz la walaata xiinu manaasin ci qiraatu shaadda la bokkul ci fukki qiraat yëpp loolu mooy tegtale ni li arab yegu bare gi te fasaaxa mooy xadaf litam ja bàyyi fa xabar gi afaalul muqaaraba maanaam af bismillah wa zaama baaduhum ñenn ci ñoom nee na ñooy qad tuamalu fi lmaarifa mën nañ ko jëfandikoo ci maarifa aywa ah mu mu misaale ko baytu naabiqa وحلت سواد القلب لا أنا باغيا سواها ولا في حبها متراخية لا أنا باغيا سواها أنا معرفة لأن ضمير لا أعرف المعارف كوكو ني واخ كو جا كون نك بنو كو مانا تول ميم ناني كو ذلك نادر أفعال المقاربة أفعال المقاربة معناها فعل يغا خاني داي تكتلي مقاربة أسمائها لأخبارها day tegtale ni li sim yi jegeente naag maanaam xabar ya ndiki soo ne kaada zeydun yamuutu maanaahu ci wolofal mooy zeyd xaw naa dee ay zeyd jegeente na ak mawt du mooy xaw naa dee feel yu mele noonu ñu tudde ko afaalul muqaaraba waaye nag min baabi taxlib adreesam bi nde yenn yi yëpp du muqaaraba yenn yi doo nga ciy muqaaraba waaye yu ci bare afaalu raja la yenn yi afaalu shuroo la waaye yëpp mu def ko benn tarjama tudde leen fiilu afaali muqaaraba ngir taxliban waaye nag yi ciy muqaaraba mooy kaada ak karaba yooyu muqaaraba lay waaye dañu karaba wala ak kariba yëpp xëy na aywa waaw lu mu ci bara doon fiyalu muqaaraba la waaye nag asaak ak lawlaqaak yooyu dégg nga ka kaada ka kaana kaada wa asa lakin nadar gayru mudaariin li haadayni xabar mu ni kaada mubtada la ak asa ji mu ci ataf ka kaana niki kaana lañ ci rafaan li sim nasab xabar lakin waaye de nadara néew na xayru mudaari in leneen lu dul mudaari o xabaran di xabar li haadayni ñeel kaada ak asa mudaari o daal mooy faral a nekk seen xabar wute naag kaana ismu faayil day nekk xabaram lu bare wala li simu jaamit kaana zaydun axaaka wala kaana zaydun qaa'iman ismu faayil kaada nag ak asa ñoom fi'lu mudaari um moo bare daal alquran lam yarid fihi illa kadalik ka yakaadu zaytuha yudiu naka noonu asa lakin nadara gayru mudaariin xabaran li haadayni te mudaari oma nag ba mu déedi kawnuhu nekk moom mudaari o may doon seen xabar mu nekk bi dooni an di ñàkk ànd ak an baada asa ci gannaaw asa bu dee xabaru asa la la bare mudaari oma du ànd ak an walam yarid fi lqur'ani illa kadalika asa dégg nga kooku néew na day ànd ak an mu daare oma day ànd ak an ci gannaaw fa asa llahu an yatiya bilfatih asa rabbukum an yarhamakum kon nag nekkam ñàkk ànd ak an néew na daal ci gannaaw asa asal karbu alladi waaye nag ñàkk ànd ak anam laa yunkaru li annahu waaqeun fi l arabiyati asal karbu alladi amsaytu fiihi yakunu waraahu farajun qaribu yakunu jooju mooy xabaru asaate àndul ak an waaye bariwut moo taxit kenn gisu ko ci alquran de nga xam ni ànd ak an nga mooy loxo bu rafet bi ah nazru wa kawnuhu bi dooni an ñàkk ànd ak nazrun lu néew la ci baada asaa ni ki baytu woowu nu wax léegi wa kaada kaada nag moom alamru mbirum iqtiraanul xabar ak an moomu mbir o kisa dañ ko safaan atte ba fii ci moom moom tajarrud min an moo bare ci moom walam yarid fi lqur'ani illa kadalika qaala taala yakaadu zaytuha yudiu wala wa ma kaadu yafaluun suratu baqara suratu nuur yakaadu zaytuha yudiu fi lbaqara wa ma kaadu yafaluun waawe mooy lisim yafaluuna xabar ànd naag an déedéet moom it iqtaraanam ak xabar naa an naadir la nag kon mooy safaanu asa asa tajarrud ga ci an moo néew kii nag moom iqtiraanam ak an riwaaya nañ ko benn bayt saqaaha zawul ahlaami sajlan ala dama wa qad karibat anaaquha an taqatta'a an taqatta'a mu daare oma ma nga ànd ak an te mooy xabaru karab maa kittu an usalli al asra ji nga foofaat ànd naa faa xabar maanaa kon iqtiraanam bi xabar arabiya saxiixa la waaye nag li gën bare mooy tajarrud gi wa ka asaa xara walakin jucila xabaruha xatman bi an muttasila wa xaraa ji fii ci feelu njort yi nee na ka asaa ni ki asaa la mel ci jëf walakin waaye jucila dafay def xabaruha xabaru xaraa muttasilan bi an xatman wujuban niroowul ak asaa mi nga xam ne mën nanu nettali lu mu néew néew fu xabaram tajarrude ci an xaraa kenn nettaliwu ca tajarrudu xabar dégg nga nga naan xaraa zaydun an yaquuma xëy na zayd dana taxaw na ànd ak an xatman xaraa zaydun yaquumu waxuñu ko juila xabaruha muttasilan bi an wujuban xatman nga daal di gis ni asaa ak xaraa kay duñu feelu muqaaraba kaada ak kariba yooyu ñooy feeli muqaaraba wa alzamu lawlaqa an misla xara ix lawlaqa it feelu raja la nee na moom it alzamu xabaraha an misla xara comme ni ñu ko ni mu koy jokkoo xabaru xara ix lawlaqa nga naan ix lawlaqati samaau an tumtir xëy na asamaan si dana taw ix lawlaqati samaau an tumtir wa baada awshaka intifaa an nazra wa nazra néew na ànd ak doaf intifaa u an ñàkk a yor dàquk an baada awshaka ci gannaaw shaka awshaka moom kooku feelu muqaaraba la moom kaada ak karaba ak awshaka feelu muqaaraba la moom walaw su'ila annaasu turaaba la awshaku ida qiila haatu an yamallu wa yamna'u lakin tajarrud gaat waqaa fi qawlihi dégg nga yuusiku man farra min maniyatihi fi bacdi girraatihi yuwaafiquha yuwaafiquha mooy xabar bi te waxul an yuwaafiqaha waaye nag an yuwaafiqaha day moo gënoon a bare ci jëfandiku wantifaau an dàquk an nasara néew na lool bacda awsak ñàkk xabaram ñàkk ànd ak an néew na waaye mooy baytu woowu ma la wax wa mislu kaada fi l asaxi kariba kariba nag ci fatug aynam mat na seet est ce que duñu waxit karaba wa wa kariba kariba mislu kaada moo kaada yam ci wàllu iqtiraan ak tajarrud maanaa kon xabaram li ca bare mooy tajarrud dafay def tajarrud daal fi l asaxi ca la gën a wér waaye su ko defee niki karaba kariba alqalbu min jawaahu yazuubu xiina qaala alwushaatu hindun gabuubu kooku gis nga ko looloo bare tajarrud niki kaada yakaadu yude wa tarku an bàyyi an nag wajaba war na maadi shuroo ànd ak fee bu tegtale shuroo bu zaqooxa zawul axlaami waxoon naa ko sajlan ala dama waqad karibat anaaquha an taqataa ay gëleem lay wax naan marwaa nga leen di bëgg a rey saqaaha nandal na leen zawul axlaami boroom sago ya boroom jikko yu baax ya nandal nañu leen sajlan baagu ndox bu fees ala dama ca kaw mar waqad karibat te xaw xawoon na anaaquha seen loos ya an taqataa muy dagg ngir mar ñoom gëleem yooyu foofa kaada ànd na fa xabaram ànd na ak an dégg wa tarku an bàyyi an nag wajaba war na ma shuroo ak fi'l ñuy tegtale tebbi ci maanaam xabar waaw ndaxte an bu tebbee ci mudaari'u tuxallifuhu lil istiqbaal wa shuroo yatatallabu al-xaal fi'l fi'l boo xam day tegtale tebbi lisim ja ca xabar ja kooku an ju dàq maanaam mudaari'u mu jëmati feneen dañuy daal di dàqonte bépp fi'lu shuroo niki lan ansha'a fi'lu shuroo nag yëpp ci yam commencé na def nangam dong yi maanaam ansha'a yaqulu commencé nay wax shara'a yaqulu commencé nay wax ay wattafiqa yaktubu commencé nay bind ja'ala yatakallamu commencé na di wax aliqat yadlimu mooy commencé na di tooñ fi'lu shuroo tabbi af commencé ah dégg nga moo tax ñu tuddee la fi'lu kooku nag xabar ji mënatul ànd ak an yow da nga ni commencé na ko ba noppi ah da nga koo ja defati an bu àndeeg mudaari o da koy yuqallisuhu lil istiqbal da koy daal di féetale lu jublu si te ak seegul faw du dëgg ka ansha commencé na as-saa'iqu koy jiital ga leen yow yaxdu di leen wayal pour ñu gaaw waaye doone ansha an yaxdu mënatul am na ñu commencé di def tafiqa yaktubu fa taqi fa tafiqa yaxshifaani wa tafiqa yaxshifaani kadaanaka noonu jacaltu ni ki jacala zaydun yatakallamu axadtu dégg nga axada axada yaktubu commencé nay bind aliqa araaka aliqta tadlimu man ajarnaa wa zulmul jaari idlaalul mujiiri ama aliq aliqta tadlimu commencé nga di tooñ wastaamaloo jëfandiku nañu nag mudaari'an li awshaka ak kaada laa xayru yooyu yaar nag moom jëfandikool nañu leen tasarruf tuuti ba ñu am mudaari en rek moom aw shakka waaye fi'lu maadi ak kaada la ñu barale waaye yooyu yaar jëfandikoo nañu leen mudaari en yom fade dégg nga am na ay lamar bi moo xamul kay kenn waxu ko dégg nga kon nag danañu wax yoosiku ni ki nu waxoon léegi baytu ba yoosiku man farra min maniyatihi fi baadi xirraatihi yuwaafiquha kaada itam dañuy wax yakaadu dégg nga jëfandikoo nañ leen mudaari an kaada yakaadu yëpp aw saka yuusiku jëfal nañ leen mudaari an waaye amuñu yeneen laa xayru du jógee ni ismu faayila ki lamara ki masdar wasaadu yokkal nañu aw saka dong day ismu faayil muusikan ka qawli shaaciri fa muusikatun arduna an tauda xilaas fal anisi waxuushan yabaaba yabaaban maanaa xaraaban fa muusikatun luy jegele arduna suñu suufi an tauda mu dellu xilaafal anisi gannaaw ni ko nit ñi wéttilee dëkk ko ba fees fa dem dëkk baag étage yi jege na lu mu nekk xaraaban lu ràpp yabaaban yabaabul xaraabu tawkiid du dëgg kon loolu dégg nañu ismu faayil ji foofu de waaye taxu koo bare dégg nga awa kooku kon ku ko asmaa yu ne moom ci waxam kenn la ci rawaatul luxa ci ndanjaamay loxo yu mag yi nee na daal dégg su ca lu dul mudaare dégg nga kon nga xam ne mudaare moom moom bare na bokk la tax las ma yu xamul lu dul mudaare om weddi lu dul loola waaye nag weddi benn aalim ci fànnam du dàq saxalu ka ko saxal de bal li annal li annal muujiba muqaddamun ala naafi li annahu xafida ma lam yaxfad ñaar bu ñu dikkee kii ni nangam am na kii ni amul la la àtte gën a déglu kii ni am na la gën déglu ndax kii ni amul dafa weddi ni dafa la daam mooy moom daal yëgul fu mu amee moom dafa ni yëgul ki ne am na mel na dafa ko ni déet man maa ko yëg man maa ko fekke ah fal muqaddamu fal mujibu muqaddamun ala naafi dégg nga kon lasma yi bu ko weddee walaw tura walaw suila annaasu turaaba la awshaku ida qiila haatu an yamallu wa yamnacu kooku ndañ yeneen ndañaama yu demee na moom ko riwaaya Xalil ibnu Ahmad al-Farahidi ah kooku kat ndañaama la wa kaada yooyu de laa xayru aywa baada a sax law laqa aw shak aw yarit qad yarit aw shak fii nag mënoo andi fataa gi ndax lor way nga li daxaam ko ci xaaf gi sukkoon kaaf gi li daxaam aw shaka la bëggoon baada a sax law laqa aw shak qad yarit ginan bi an yafala an thaanin fuqit maanaam yooyu daal danañu leen jëfandikoo ñuy taam mu am faayil rek an yaf alaja ñu di ko taawil xabaram ma faayilam man masdar di xabaram ci gannaaw asa ak gannaaw ixlaqlaqa ak gannaaw awshak mu doyloo an yaf ala boo ne asa an yaquuma zaydun mën nañu mën nañu ni asa an yaquuma zaydun an ak yaquuma maanaam dañ ko taawil masdar bi maanaam asa qiyaamu zaydin maanaam maa ngi yaakaar Seyd taxawaayu Seyd kon léegi li sama xabar dootuñu ko ko waxal ah aw sa kanuunu ixlaw la kanuunu ixlaw la ka ixlaw la ka an tamtura sama kooku bi maanaa an tamtura gi mooy faayilu ixlaw la ka dégg nga maanaam mu doyloo an ak mu daare oji ñu di ko taayil masdar muy faayil kon yooyu taam daal mën nañ ko ko def mu bañatee am li sima xabar fiil yu am li sima xabar naaqis la mu doyloo ko an saanin walis aji ñaareel joo xam ne fukki da ñàkkeef na ko maanaam la doon xabar mu bañatee aajo xabar doyloo faayil loolu mën na am waaye kon bu ixlaw la xat an tam tura sama ixlaw la xat sama an tam kooku kon lu muy firi nan koy defee faayil ah xëy na te fiyalu njort la ma ixlaw la xat ah waaw maanaam njort ma sorewu fa man nga ni ah man nga ni asamaan si niru na ni day bëgg a taw léegi ixlaw la xat sama antamtur xëy na asamaan day bëgg a taw xëy na bëgg a taw asamaan nga xam ni kon antamtura mooy faay mu nekk taam dëgg xam nga fiyalu taam mooy bi ajootul lisim ak xabar ajootul xabar lisim rek la doyloo kon antamtura sama u lépp maanaam mataru sama i lañ koy taawil muy faay ansaani aji ñaaril ji doon xabar wa jarridan asa aw irfa mutbaran biha ida smun qablaha qad zukira wa jarridan na nga rafleel asa asa ci taxamulu damir aw irfa wala nga rafa mutbaran damir biha ak moom tajrid bi mooy logatu alxijaziyin nab damir gi mooy logatu tamimiyin loolu kañ la nag yooyu yaar ida smun su fekkee ab lisim qad zukira dañu ko tudd qablaha la jëkk asa da nga ni zaydun asa an yaquma su la neexee bu dee loxo xijaas asa yorul damir an yaquma mooy faailam jumla ji xabaru zayd zaydun asa qiyaamuhu loolu mooy loxo xijaas yorul damir bu dee loxatu xija tamimiyin asa an yaquma asa ma ngaak damir nëbb na huwa muy lisimam an yaquma di xabaram ñu ni waaw fan la samaratul xilaaf bi feeñ kañ la différence yi feeñ ñu ni ko tas ni yàlla zayd mbaa nga jamu ko mbaa nga tanis ko mu daal di feeñ soo ne zaydaani danga naan asayaa ci loxatu tamimiyin alif gi mooy lisimam an yaquma di xabaram su dee loxatu xijaas nga ni asa an yaquma ni nga doon wax ci saydun nga ni saydoona asa an yaqumu ci loxatu xijaas asaw an yaqumu ci loxatu tamim hind asa an taquma ci loxatu xijaas asad an taquma ci loxatu tamim noonu lay nekk wa jarridan asa aw irfa mutmaran biha ida mun su fekkee lisim qad zukira qablaha muy mubtad dañ ko tudd la ko jiitu muy mubtad su ko defee yooyu yaari loxam moo ci ne wal fatxa wal kasra ajis fi siini min naxwi asaytu wa intiqal fatxi sukin wa ajis daganalal fata ak kasra ci siinu asaytu su ca damir rafa mutaxarrik jokkoo la nu wax de ah aywa amma bu fekkee nag damiru saakina moo ci jokk ni ki asaw kooku fata rek lañ ca mën a def waaye bu dee mutaxarrik ni ki asayta asaytu asitum asina kooku ñaari loxo yëpp a ngi ci ñaari njàngin la ci alquran naafi day kasra xafsa an aasim day fata waaw ña des kon fata gi moo tax mu ni wantiqal fatxi tànn fata ga sax sukki na miinees na ko kon li ëpp jàngi quraa yi yi dañ koy fata naafi nag dana ko kasra faal asiitum ci xiraatu naafi asaytum ci xiraatu xayri naafi